bokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah noo ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk yi tableau bi ngeen di seen ci sama gannaaw lenn la ci foncier bu Touba lii mooy village bi sëriñ Saliou yàlla nañu ko yàlla fayal duppe woon Touba mu Moubaraka mu doonoon fanweeri quartier ak juróom-ñaar wala juróom-ñett waaye bi ñu demee ab diir am na ay quartier yu ñu ci wàññi ci biir village bi beral ko xëy na village bu boppam waaye lii nag dafa doon liggéey bu am solo boo xam ne chef de village bi di Serigne Saliou Dieng chef de village bu bu Touba Boukhatoul Moubaraka def ko liggéey te jàpp naa ne mbooleem chef de village yi nekk tubaab bu ñu royoon lu mel nii danañ yombal sëriñ bi lool fi suuf si tàmbalee fi mu yem fi mbedd yu mag yi jaar fi penc yi nekk fi kër sëñ Tuubaa yi nekk ana lu ci des ana lan lañu ci dagg ana lan ana lan ana lan te liggéey bi nga xam ne daf ko def ci Boukhatoul Moubaraka noonu la beralee karce bu nekk quartier bu nekk daf koo beral plan lii nag jàpp naa ne wane ko lu am solo la waaye roy ko it moo ëpp solo lool kon dañu ànd ak Serigne Saliou Dieng ndax bokk yi xam ngeen ne àddina fépp fu Moussa mi jafe-jafe rek suufa ko indi bu la neexee nga tàmbalee ci Israël ak Palestine foncier bay ngay bëgg a toj sax biir Sénégal bés bu set nga gis ay nit ñu taxaw ne suñuy tool la ñoo ko doon béy lii nag bokk na ci li nga xam ne day yombalal kilifa yi seen liggéey moo tax ñu fas yéene ànd ak yéen ak Serigne Saliou Dieng mu leeral ñu quartier bii di bokkatul bu baraka ñaata quartier la mbedd yi ni ñu toll bi ko sëriñ bi natt mbedd yi gën a mag yan la trente yi fan la bu fekkee ne am na lu ñu ci dogit mu leeral ko kër sëñ tubaa it ñaata la ak lu ci des ndax kat mbokk yi doomu sëriñ tubaa ko defoon de kon nag na leer mbokk yi ñu ngi leen nuyu nuyu ba gën a tedd leen siyaare leen sant leen gërëm tey siyaare sang bi sëñ Muntaxa waa kër Sëñ Tuubaa ñëpp ah, sëñ Cheikh sëñ Fallou jërë ngeen jëf ci ñëw ngeen fii ngir di leerlu xatuba mubaaraka <coughs> gin sëñ Saaliw dénkan comme ni nga ko waxee rek Cheikh saa borom dogalee sëñ bi natt ko dem na ci fanweeri quartier ak euh, juróom-ñett defe naa xanaa ñu wàññi ci ba mu des euh, ñaar fukki quartier ak ak ñaar ñu dénk ma lii mooy li ñu ma dénk Saliou Dieng lii boo seetee maanaam Sonatel bi bi ci Madiana fii nekk Sonatel bi fii la maanaam marché Mbaare fii la fare léegi trente bii trente bii nii maanaam moo jëm moo jaar fii ñëw ci euh, quartier boo xarnu Baraka léegi maanaam lii mooy quartier mooy bu naax yu lii mooy saamuk sëñ Abdou Latif lii mooy saamuk sëñ Bara Khourédia ah, lii di mooy bu lii di quartier bu xarnu Baraka nga xëy moo ko waa fi mboolem quartier quartier bi am na kër Serigne Touba mi ngi nii am na jumaa jumaa joo xam ne Serigne Bassirou Touré moom sax na taayeeratu moom sax plaat maanaam moo koy jiite ah, forage bi ci ah, saamit maanaam fi la nekk teew bi mooy jëm jaxate maanaam lii mooy jant Mahwa mbedd bi mooy jëm ba teer Murtala maanaam lii mooy Baye Fall gi léegi mbedd mi bu ñuy fii yëpp marché bu tas marché bu tas mi ngi ci biir daa mel ni daa bokk ci bi dagg bayaat yi dañ koo daggaale woon fii moo doon fii moo doon bu tas waaw dañ koo dagg waaye nag ndigal lañ ko daggee mm-hmm. dégg nga bisaa ba ndogalee bi mu nekkee nii ñëw fii lay jeexe mm-hmm. lii mbeddum 30 la lii mooy di jëm ne moo mooy Baye Fall gi ñëwaat jantuma waa lii di lii di quartier Ousmane Mahab 30 bii moo jaar fii ñëw ci porte yu xong yi porte yu yi fii la nekk bi dafa ne ñëwaat ci Baye Fall gi ñëwaat nii lii lii mooy Baye Fall mooy kër Cheikh Yoro Fall ba <coughs> loolu xamee 30 lii mooy pàkki sëñ Mbàkke Soxna Lo lii mooy pàkk waaw moom mooy jaanatu Naym lii mooy jaanatu pàkk dañu pàkk bii moo jógee ba tey ndox bi ci daa fii la jaar jaar fii dem ba ki trente bi nga xëy ni fii la quartier bi yam nga xëy moo jógee kër Cheikh Sidi Mokhtar ga ca féete kër Njaxate trente bii la léegi nag li ñu wàññi ci quartier wàññi war plan bi lii ci natt bi fii la dale jëm ne trente bii ma nga jëm ca fooraar ba ca dar fooraar dar ramaan ba ci la trente bu yëm ci mbedd boo xëy ni cent vingt mètres la woon waaye dañ ko cent def ko def ko trente mètres waaw waaw ah, waaw ah, léegi bo bo bo boo wàccaatee ni léegi quartier bii nii trente bii ba tey nii maanaam ba tey moo dem ci xoñam si yax si Muxtaar ba tëli ba jëm côté Muxtaar ca ko tëli ba tëli ba fii la nekk maanaam lii nii lii nii mooy quartier Touba Darou Salaam moo jaar fii gis ko gis ko lii mooy quartier Touba Darou Salaam kër Sëñ Touba gi ci Bokatouna Baraka ci jumaa yi jumaa ji fii la nekk kër Sëñ Touba gaa ngi nii lii mooy quartier Mamor Diarra déedéet Touba Darou mooy Touba Darou lii mooy quartier Taïba ci la poste bi nekkee maanaam lii. mooy quartier Mamor Diarra Mamor Diarra ci la bu muy marché bu bees marché nekke bees fi la nekkee ñu naan ko marché Mamor Diarra lii lii mooy quartier Soxna su Gaawaan lii nii Alaaji Baara moo ko joxoon sëñ lii Alaaji Baara moo ko jox ci quartier euh, maam maam Soxna su Gaawaan Soxna su Gaawaan lii quartier Mamor Diarra lii mooy quartier Ah, lii itam ab trente la boo xam moo teqalee plan yi dégg nga ah, ba tey trente bii nii gis ko moo romb mate bu tas mate bu bees da koo romb jàll dégg nga lii mooy quartier Darou Wahab quartier Darou Wahab moo nii nekk ci plan numéro onze lii mooy quartier Nasrullah dégg nga bu ko defee da ngay continuer rek lii mooy quartier Akaanaakaan ci plan numéro 9 lii mooy quartier bu Taalana lii mooy quartier Subul Salaam lii mooy quartier Touba Jannatul Firdaws lii kër Serigne Touba la kër gi ah, guddee na cent quarante yaaton mètres yaatoon cent 145 mètres. ah deux deux cent. deux cent deux cent quarante cinq mètres. Mm-hmm. yaatoo cent dix mètres. Mm-hmm. yaatoo cent quarante mètres. Eh, penc mi mooy euh, yaatu na ni cent dix mètres mm-hmm. def ni cent quarante mètres lii mooy trente bi mu leen wax ne moo jógee ca ba ba tey Murtala kër googu tàmbali nañ ko liggéey bu sëñ kër gii maanaam jamono sëñ Saaliw am nañu ko tàmbali mu ba léegi ma nga fa ma nga fa kon quartier bu nekk sëñ bi mu koy natt def na fa kër sëñ Tuubaa def na fa marché palaa palaa plan plan plan ba mu natt rek mhm. ci plan yi mag mhm. def na ca marché mhm. def na fa def na def na def na école def na def waaye palaa yii nag moom day mel ni ah palaa plan numéro neuf bi marché ba rek maanaam mooy la fa mooy la fa des ak gi li ci def lépp maanaam joxe woon nañ ko daal joxe woon nañ ko léegi lii mooy quartier Touba Jannatul Firdawsi li nga wax maanaam lii mooy quartier Minatul ci la marché ndigal nekk mi ngi lii nii mooy quartier Sénélec Touba Sénélec dégg nga ah. lii nii jaar nii jaar nii ñëw nii ñëw nii ñëw nii ñëw nii lii mooy quartier Madinatul Munawara dégg lii nii lu tuuti lii mooy quartier Touba Oumoul Khoura amoon na kër Sëñ Tuubaa waaye soppi ko na. ci biir quartier bi amoon na soppi ko mhm. lii nii mooy quartier Daaru Xafoor ci la marché Oumoul Khoura nekk mi ngi nii takk takkaloog pàkkitin Mbàkke soxna Lo waaw Jannatul Nahim fii nii mooy forage bi ci Umul Xuraa bi mooy Aynu Rida léegi quartier bi di jaar fii jaar fii ndax moom ñaare dañuy def dañ koy lëkkaleeg mbedd weemeet quartier bi tàmbalee fii ñëw fii nii mooy quartier Natbul Hamin poste santé bi ci Umul Xuraa mi ngi nii lii nii mooy quartier Nourul Mounir. 120 mètres bi fii la jaar. bi mi ngi nii waaw. ana 30 bi jóge woon fële Elipo jëm booru Darou Moussi. ngi nii 30 bi mi ngi jaar ci penku foraatu taw foraat bi umul xora umul xora maanaam moo continué mu ne nii ñoom ñoom Darou ndax boo demee table bi ci ci bi ci yoonu Mbàkke yi ci ci rompay ba bind nañ fa tax Daaru Muxti trente bi moo moo tax mbind moomu bi ko tax waaw moom loolu la sëñ Saliou xalaatan directement la xalaatan léegi nga bi mu demee ba ca xam nga fii laa yemoon leneen lii la jëlee ci carte bi ba mu demee ba ca cent vingt mètres ba dañ ko changé def ko trente waaw dañ ko def ko trente waaw nga xëy ni boo xoolee cent maanaam mbeddum cent vingt mètres mii boo ko toppee maanaam boo dalee fii ci pàkk si looyi fii la daloon mm. maanaam lii ba ca fa mu tourné mm. cinq kilomètres cinq cent cinquante mètres la. mooy cent mu mu mm-hmm. ci poste courant bi foofu mm-hmm. boo xoolee da ngay gis ay ay ay poto ci biir kër yi noonu mm-hmm. foofu la jaaroon waaye nag ah, maanaam ah, maanaam ki doon mm. bi bi bi maanaam da koo wàññi ko ab trente. ñu doon ñu doon installé ko bi nag courant bi nag moom ñoom loolu la ñu xaman ba loolu lañ def waaye ki doon natt moo ko wàññi def ko ab temps waaw léegi bi nga ko wàññee it bu ñu ñëwee ba def ko cent def ko trente mètres bu ñu ñëwee ba yoon Darou Moussi dañ ko faa baare foofa yam ah, léegi mbedd mii moo jógee ba teesee Mourtala waaw ba teesee Mourtala mbedd yi moo jógee jaar fii ñëw fii bu ñëwee dugg dugg na ci Baye Fall gi waaye dafa xaw a baariwaat. mel euh, ci biir. Euh, maanaam li sëñ Saliou moom. Mm-hmm. amoon na fi defe naa ñeenti kër yi mm-hmm. day mel ni. kër gi moom wér na. daayira bu nekk janwaa ñoo ko tabax te ñu am tan Sëñ Abdou Lahad moo moo moo ko doon toppatoo ñoo nañ ko ba pare. bu defar nañ jumaa ja Sëñ Basiru Ture moo ko moo ko jiite waaw. Ah, beneen kër bi mooy kër Sëñ Tuubaa gi ci Buqaatul Mubaaraka nekkul Mubaaraka rek d'ailleurs Sud di liggéey jumaa ji. jumaa jaa ngi nii ji maanaam mooy ji waaw dégg nga yaari kër. mooy kër yi nga xëy ni eh, sëñ Saliou bàyyi woon na ko fi yooyu moom soppi soppiwut boo demee ba fii quartier Touba Mataalib li naan mi ngi fi am na kër sëñ Touba waaye am am na coppiku dégg nga wax bi xam nga dem tamit yetti kër laa la wax fii léegi boo ñëwee ba fii ci suuf mm-hmm. ah, Baye Fall gaa ngi nii mm-hmm. fii quartier Oumoul Khoura mm-hmm. fii kër sëñ Touba la woon moo xam ne soppiku na kon moom it soppiku na soppiku na. def nañ ko ah, na soppiku na waaw ah, léegi bu ñu jógee fii it <laughs> ah, bi maanaam trente bi nga xam ne moo jógee mat mat maanaam mbaar ya. ñëw ba ci porte xong yi. bi nii. Mhm. dafa jaaraat diggante plat numéro neuf. Mhm. ak plat numéro six. Mhm. dem ci saa weemeet ba. dégg nga léegi nee gi soppiku na. léegi boo ko toppaatee kër gii nii. kër gi kër gi nii ah, am na daayira bu nekk Bilbao sëñ Abdou sëñ sëñ sëñ xaadi mu sëñ fata moom ñu ko doon toppatoo moom leen sëñ Saliou booloo boole nan mhm. moom lañ fay mool waaye jamono sëñ Saliou la booba tey kenn du fa daal waaw nga xam daal ah. lii nii am penc la am mi nii cent quarante mètres la. waaw nii cent dix mètres la. kër gi maanaam nii cent quarante mètres la nii deux cent quarante cinq mètres. kon moom ma nga fa soppeekoo. ma moom ma nga fa kër kër gii moom. Hmm. kër loolu wér na. waaw léegi li ki dolli kër ga ca tegee nga xay maanaam moom la xay nat nañ ki du jagut. Hmm. kër ga fii la nekk. Hmm. ci quartier Madinatoul Salam ci plan numéro 10. mooy li ñu. mooy kër gi nat noonu. waaw moom lañ natt kër sëñ Tuubaa ko natt nañ ko. waaw waaw ah, marché bi gën a rëy ci Touba it. Hmm. maanaam ci panaa bi la nekk moom it natt nañ ko. natt ko def ko. waaw waaye kenn dëkkagu ko. déedéet dara nekk gu. kër gi muy kër sëñ Tuubaa gi nu mu toll. si kër uh, kër gi. léegi kër gii nii àgg fii ñoo toll ndax mbedd weemet bi dafa jàll kër gaa ngi fii ñoo toll maa ngaa fa marché bi a rëy nga ne waaw ci Tuba ndax marché mat na trois cent mètres waaw léegi kër Cheikh Sidi Mokhtar gi ci Njaxate kër gaa ngi fii tali bi fii la tourné dem ko te Amadou Mokhtar te te tali bii nag mbedd mi nag mi ngi nii dem na ba ca cent vingt mètres yi nga xay doon nañ ko xayma it ci bu xatul baaraka tali bi hmm. xam nga ne fii yëpp amut goudron amul dara dara dara dara dara waaw ah, fii yëpp amul dara amul dara waaw ah, te maanaam diggante ah, fii nii hmm. diggante bi deux kilomètres la waaw diggante fii nii hmm. diggante fii nii hmm. ak ak ak trente bii trente bii trente bii maanaam quatre kilomètres la mooy trente bi jaartaa budd kër rek ut trente trente la centre bi ci Madiana mi ngi fii. waaw dégg nga nga xëy maanaam trente tëli bi bi mu ci Mbaare fii lay jàpp bi ñu ngi trente bii dégg nga. bi ñëw rom mata bu tas ñëw ci porte xooñ porte mi ngi fii dégg nga dañoo xam ne dañ buñ ko yeeyoo foofu ñëwaat ñëwaat fii trente bi xam nga mooy dem ko tax Sidi Moxtaar maanaam buñ ko jëlee fii yeew ko tër bi ci kër buñ ko jëlee waat ci kër Sëñ Tuubaa gi it romb kër Sëñ Tuubaa romb mata bu bees fu mu yam baax na loolu la ñu wax. loolu bu sottee sam commencé may. waaw waaw waaw. xam nga lu toll ci fanweeri doy na waar waaw. Eh, bu dee wàllu éclairage public bi nag lamp yeeg lëndamaay bi. kooku it euh, xam nga noonu daam nu nu ñu suñu borom bi. waaw ñun dëgg rek la ñuy wax. Mm-hmm. fii nii fii nii. quartier Senelec bi ngay dégg ci Touba. waaw quartier Senelec mi ngi nii gis nga quartier bii waa Senelec lañ ko njëkk na jox. bi ndigal la ñëwee ñu nangu kër ya. ñu hmm. waaye te dugg nañ courant fii daal courant bari na fi sëñ bi marché bu nag waaye courant bari na moom. Hmm. Hmm. Ah, maanaam ndox it. ndox mi ah li wér te wóor maanaam. fii ci lii na xam ne moom sëñ Tuubaa dénk moom. fu teew nekk teew baa ngay xel moom. te nag moo manqué lool nag waaye fu tiwa nekk may xel coow lii gars yi coow ci maagal gi naa manqué noonu taamata ko a njaay man sëñ bi aw ma bate sama saas ci laay sangu maa ngi ñeneen ci maagal gi mu ñoo ñàkk ndox baragu fajukaay oh, mhm. ah jamono yi sëñ Taaliw mhm. defaral nañ ci ñaar mhm. jamono yooyee su rang noonu na alaaji baar noonu ko dañ am ñeenti poste de santé waaw ñaar ah, ñaar a ñamagul dañuy soxla ay barab yoo xam ne dañ fay def yenn service yu mënul ñàkk ay sapeur pompier ay ay ay ay ay service d'hygiène hmm. ñëpp soxla nañ ay barab yu ñu nekk jàpp nga ne ci plan yi ñu nekk ci dëkk bi mën nañ ko fi am fi mu ne nii hmm. xam nga da ci am hmm. day am solo lool laaj ki xam ci teel moo leeral lam xam ndax ñun lañu xam ca jël benn bu ñëwoon bu maanaam bu ñu laajee bu ñu leeralee li ñu bëgg lépp dana maanaam waaye amul lenn loo xëy maanaam dañuy def ko ba ba tàggun dañuy dégg rek ñu ne def nañ te sëñ Saaliw it sëñ man xamal na ma ci dëkk bi loo xam ne nii yéeme na waaw Cheikh Sidi Mokhtar keroog muy jox sëñ Sidi suuf si da ko ne Saaliw nañ ko bari ci suuf si naa la ne ci fi ma fare ma li may li may fa xam daal bari xam naa lépp fane na mu ko waral mm-hmm. waaw waaye daal tax nañ baax a baax ndax ndax Baye Fall gii dafa naa ne juróomi junniy kër waru ko ëpp. juróomi junniy kër. waaw. Mm-hmm. pàkk sëñ. pàkk sëñ sëñ sëñ Moustapha Moustapha. Mm-hmm. sëñ sëñ Mbacke. waaw jaanat na yem. ñaari junniy kër la a juróomi juróomi junniy taal. dégg nga xam nga da ngay daal dañ bi tëri bi ci dem ci rompay héliport mm-hmm. boo dee tëri bi ci rompay héliport ba ba ca héliport ba ba ca gaaraatu Berlin loolu boo ko seetee huit mille huit cent quatre-vingt-quatre parcelles foofu laa jëkk recensé ñu toog a ñu toog a joxe joxe bu xottu mbaar waaye nag duñu laaj dara dañ ne bàyyi rek ñu ne yàlla nag doon dongo yu mat sëkk nag ñun li ñu santan suñu kilifa dañu dañu balafal bul xëcc bul ji mm-hmm. waaw lu ñu ma wax daal mm-hmm. la ma ci xam dinaa ko wax mm-hmm. bu ñu waxul ma ne ci yàlla jàpp sama jàmm kon yaakaar naa ne buñ la laajee ci xam maanaam buñ ca na a ndax fi ne nii mm. dëkk dafa am lu mu laaj dafa am ñoo xëy dañoo war liggéey Sëriñ Tuubaa ci biir dëkk bi ànd koog ña nga xëy ñëw dëkk bi ñor ñuy leeral fii nii nii problème xam na gis foofu ñu def hôpital bi ci pàkk Cheikh Sidi la xam ne bi bëggee def hôpital bi amuñu woon ne maanaam nit ñi waxtaan nañ ñoo ñu waxtaanal diggante hôpital bu bees bi ak ñett pata yi fi sàndama liggéen hmm. loolu waa ko tañu baata ko rëj ñi ñoo ko bu ñu waxtaanoon sëñ Muntaxa bañ bañ laataa def dara sëñ Muntaxa ne leen fii de dana fay toog fu ñu liggéeyal sëñ Tuubaa dañ ko koy jox waaye amul kenn koo xëy dana xalaal xalaaloon di ko ah ba fii yooyu la pare pare pare pare penku hôpital ba sëñ Muntaxa bu ko soxlaa da koy jël maanaam junni kër lañ ko ba joxal junni yooyu ci lañ taxan hôpital bi yooyu nag mën na di leeral sëñ bi ngir ah, muy teg ci kanamam maanaam ñoo xeeb ñi nga xëy ñoo xam liggéey bi loolu la. ndax lii de yaakaar naa ne ba fa dara newul. Hmm. ngeen nekk ca ba tey nii. waaw ba nga def ko nii ci plan yi nii quartier bu nekk nga defal ko ci. Hmm. vraiment yaakaar naa ne liggéey la boo xam ne buñ ci sukkandikoo. Hmm. yu bëri mën naa saafara. waaw ah, ndax jumaa ji dong. may defar plan bi. dama ko ne bu xottu baraka kii mooy sunu symbole. waaw kii moom mooy lépp. lépp moo ko moom. tey da cee amoon yéene. te it la ma wax gi naa ak Cheikh Abdou Dieng Bada Bada gis nga saawee meet bii bi ko sëñ Saliou yi def mbedd dama ñu dox donc mu taxutoon ñu koy am la ko tax gi naa ak Cheikh Abdou Dieng la ko tax a jóg bu ñu ci xàggee kenn mënu ko te am ku fa nekk da nga jóg hmm, baneen hmm. moom kay ku taal mën naa kawaat ba ca dolli ku mbeddum deux cent mètres ñu koy def sëñ bi maanaam ab tali taxut am na lu ko tax a jóg te dëkk bi ma day dem ba laaj ko dootu ko mën a ñàkk bu ñu demee ne ba loolu ak si fokk maanaam ko fa nekk da nga jóg ak koo mën a doon waaw man sëñ Tuubaa dëng laa gëm te xam naa bëgg-bëgg sëñ Tuubaa doon bëgg-bëgg sëñ Saliou la fokk dana am waaw ku mu doon nga ne fi la tax sëñ Saliou def ko bàqsee da nga jóg waaw ku daw ku nekk ci mbeddum 200 mètres wala 100 mètres foo ma ne naa jëm si xam ne la tax sëñ ko bàqsee maanaam da nga dañ koy def léegi sëñ Tuubaa yi nga xam ne moo fi loo jàpp ne moom lañ ci moom lañ war a def fi ñu toll nii pour gën koo wagar ba mu bañ a mujjee <coughs> ñi mujjee kër yi moom sëñ mm. mu taxa moom li ma leer yaar kër yi fi des moom moom mën naa waat ne bu ko leeral dana ko defar tax sëñ Tuubaa dong ko ñor te ñaari kër yi mu fekk sëñ Cheikh mi mu Cheikh yi mu taar joxe wu gën alay baara joxe wu gën jox ko jogoon kenn kër yi sëriñ Tuubaa la fi nekk la fi nekk waaye dëkk bi boppam dafa waa dafa aaja leeral dafa aaja gëstu gis nga nii def nii tànn conseil nii mm. conseil bu ne dañoo war a seet lam man ma lam man ñu def ko conseil loolee ak la mu xam te xam na ci yoo xëy na ma yàlla baal jëlëfin na man nag moom li may wax ne moom sant na yàlla baaw ndax fi ni kër aw ma ci genn kër bu ma dentee kenn dama ko doon doon genn kër kon wax dëgg moom daa koy def. te lii yëpp fi ci ay kër boo leen <laughs> sëñ bi daal daal bari na daal <laughs> daal waaw naa nga fukki junni kër daal atum waaw léegi fii ne boo fii yoon daaru mu si wow hôpital boo demee mbedd mi nga xëy moo ko faree ak masari mbedd moom fa la sëñ yamale ab titre foosé mbedd mi deux cent la jàpp naa ne ku ko jéggi dëkkoo Touba mm. man loolu laa jàpp man waaw ndax sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa moo dem ba dem deux cent mètres yamale tiir fa li gën a yéeme nag bi mu demee ba ci hôpital ba xam nga hôpital boobu na raara boobu jëm jëm jëm Daaru Karim seen kër ga maanaam ba ñu koy lëfin mm. sëñ sëñ Moustapha Mouhamadan mm. moo doon toppatoo kër man mi ma wax gën leen ba dem deux cent waaye bi ñu demee ba ci biir waa météo jël cent cinquante mètres waaw waaw ñoom ca ñoom ñoom ca la ñu arrière Ah, ba ba ba agsi ñoom marché ñoom dem waaw boo ko toppee ba tolloog Daaru Karim googee deux cinquante mètres yi fi des am na fa dañ koo miiré waat kon loolu la ñu nut waaw waaw waaw doy na waar waaye daal li ma xam daal mooy leen daal li ma xam daal mooy sëñ Salif boo xam lu mu xalaalu ne fokk day xam ndax natt bii bokk na ci natt yi gën a rafet ci Tuubaa ndax sëñ bi lii ab trente la lii ab 30 la lii ab 30 la lii ab 30 la lii ab 30 la lii ab 100 WMR la dégg nga lii ab 30 la muy loo xay sëñ bi programme Serigne Touba a Baye euh, ah, xanaa sant rek nag waaw sant rek xam nga maanaam fi ne tàggoo yi moom sëñ bi sant dong laa war a tax gis nga lii ma Sëriñ Tuubaa defal nii murid yëpp ko bëgg te ñëpp mënuñu ko am ginnaaw Sëriñ Tuubaa defal na ma ko nag damay ki sant yàlla bu baax a baax sant nag Cheikh Abdou Dieng Balla Fall mi nga xëy moo ma tekki taraata ba Sëriñ Saliou wóolu ma liggéey loo waaw moom daal li may sant daal dénk sama bokk télé bi noonu taalibe yi nan xam suñu bopp bu ñu xamee suñu bopp duñ xam benn gàllankoor